asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa bitim réew rawatina yéen ñi safoo di bàyyi xel waa Elvision Média tey nag Sista Eva ñëwaat di ànd ak yéen seen émission li ma bëgg a doon li ma bëgg a doon xam nga képp kuy nekk ci dund euh, ci bi di dox yaakaar naa ne am na loo bëgg doon ma daal di bëgg doxantu nii tuuti daal di xool sama gars yi képp ku ma tasee rek laaj ko moom lan la bëgg doon sama gars yi topp leen ma ma daal di xool kenn fii yaa gën a ndaw yi na ngeen def nam naa leen yéen a neex ni yéen a ngi foo ah kon noonu menteri sama premier. Kalau orang wahal kan kan kan. Siapa yang bilang fluid kuat? Tapi nak kelihatan tu kawan. Kan dia kayak gini. Ini damen amnakin, ada damen amnakin. Top lane. Assalamualaikum. Yes, Wah, eh, kira abaya ya? Yeah. Nah kamu? Kamu ikut lah. Lu Ya, yang dia buat. Ya, ini. Kau dan jam ni? waaw bon bitig bi laa doon bëgg a dem ah, ut bëri ak rek wargal suuf rek. waaw yow daal fu la fekk da ngay teg caa waaw waaw teg ko nii. Euh, sama gars yi kii ci élément El yi la bokk. xoolal rek li def sama première émission man ma tasante moom ah dëgg neexul tamit te maa ngi bi dafa wéet trop non en fait fii sama géeroo sax quoi benn ah. moom lañ fi seet si woon it waaw waaw la koy fii mënta doon sa koñ xaw ma coïncidence bi ni mu demee nii ba ñu bëggante sax non fii mënta doon sa koñ mënta doon sa koñ ah, euh, laa la bëggoon dalal euh, li ma bëgg a doon ok initiative beaucoup quoi initiative bu nice quoi. ñu est ce que mën nañ am fii nii fu tok toog ma poser. waaw comme ñun ñun ñaan ñëpp ay gan lañ léegi yow ñu ñëw ñu daaj nii kon. waaw ok mën na nekk ba léegi. Ayo. kon ni ma leen ko doon waxee rek mbokk yi mata seen fee sama benn gannaaw boo xam ne ne moom suñu bokk Elvision bëgg ko laaj moom lan la bëgg a doon. waaw Eva ñu ngi lay siyaar avant tout d'abord di siyaar gars yi ñuy seetaan yëpp di seetaan euh, di siyaar aussi ñi nga xam ne ñooy suñuy abonné télévision Média donc Aba Kanga moom Kang Feury je pense que les mu bëgg a doon anytime c'est la nekk nii quoi mooy hip hop mais am nañu rêve deuxième choix aussi quoi une deuxième rêve nag mooy président de la République du Sénégal dégg ngeen Aba li mu wax président de la république la bëgg ah, doon ah tamit loolu yow lu tax nga bëgg doon président. ah mais pourquoi pas en fait voilà rêve la et puis c' normal tamit kenn ko si nekk am na loo xam ne sa yëg-yëg la yaa koy dund donc en dehors de hip hop bëgg nañ nekk président jiite réew mi. man bëggoon xam lu tax yow nga ne da nga bëgg nekk président de la république parce que <laughs> am na ñu fi nekk dañ laa doyul wala. non en fait c'est pas doyuñu wala ou nañ ñu genre quoi mais on voit que voilà il y avait certaines choses qui existaient au Sénégal tu vois donc et puis nous rappeurs donc je me dis que ne nag comme te ñun ñoo ko mën a taxaw dindi ko fi pourquoi pas euh, benn rappeur nekk fi président de la république et puis est ce que du nekk avocat ngam sax. ah loolu ëpp na avocat ndam doon euh, président de la république loolu dina for mais man li ma jaaxal ci rappeur yi mooy que ñoom euh, seen.

bari na fi si hip hop bi clash mais clash aussi tamit ci hip hop la bokk quoi buñ ko buñ ko fàtte tu vois. deuxièmement bi mooy nañu bàyyi xel ne aussi tamit que ne du rappeurs yi clash rek la ñuy def et puis certains heures nañu xalaat ne benn affaire bu réew mi di tàkk rappeurs yi ñooy jóg ñooy taxaw nañu bàyyi xel loolu tiba en général mës nga gis benn manifestation rappeurs yi jóg def ko pour ne ñun rappeurs yi la quoi pour ñun rappeurs yi kese loolu mësul am te du am quoi rappeurs yi donc je pense que ne askan bi la ñuy défendre quoi tu vois li fiy dégg yëpp mooy yi nga fiy dégg comme ñu si mel ni mouvement Y'en a nitu dëgg ñooñu noonu ñëpp benn combat la ñuy mën a mooy naka la askan bi di taxawee nekk sa kanam quoi donc ñooñu noonu je pense que ne ñooñu am nañ beneen mission beneen vision bu ñu nekk lu dul taxaw di clashanteeg wala yooyu noonu genre donc pourquoi ka ñenn kenn si ñooñu noonu dem yor réew mi mën na nekk ah. ah man man bañu ma mën a nekk de parce que man sax ba instant bi nii doon naa euh, sa premier euh, kii bu lay voté. Ah loolu waaw waaw mën na <laughs> nekk man loolu mën na nekk bëgg naa Aba Kandam daal di doon président de la république. mais <laughs> Aba bu ma reetaaloo dégg dama nekk ci sama émission nag di waxat waa askan bi Aba moo ko wax te du man dégg ngeen euh, Aba ma bëgg la posé waat beneen question. mooy boo doonee président de la république yow lan nga mën a gis ci réew mi loo xam ne ne mën duñ ko bëgg bëgg nga ko dindi te ñi fi nekk dindi wuñ ko. waaw bon parce que tamit amul kenn ku mat peut-être di nga am benn objectif am benn yëg-yëg benn affaire boo xam ne bëgg nga ko dindi mais nga dem ba toog si bopp nguur gi affaire bi réer la quoi day am. mu ngi mel ni Taïfa ñun ñii sax nañ ko xool suñu bopp da nga yor benn dix mille franc tu vois léegi nga am benn affaire boo bëgg faj bëgg ko def coûte que coûte mais bu dix mille franc bi ñëwee rek c'est fini doo def loolu noonu et puis boo ko lekkee ba pare nga koy doo xam quoi donc dañuy dañuy comprendre ñi toog si bopp nguur gi quoi mais ñun gis nañ ne carrément Sénégal le première des yi ñu war a def mooy il faut que ñu changer jikko yi quoi tu vois je me dis que ne balaa quoi pour que le Sénégal mel Sénégal bi mu wara nek il faut que avant tout d'abord abord yi dañ koy jéem changer quoi ñu dindi ko ba set la preuve en est que xoolal ko kenn ku si nek tey jii nii da ngay gis bo jëndee sa kaasu café nga nan ko ba pare ka tiwa nga garder sa kaasu café bi. donc parfois daf may dal ma ne samay gars dañuy ànd donc jënd kaasu café après xam nga nga téye sa kaas yow dem ba si benn poubelle nga sànni ko fa quoi mais gars yi naan yow ji koy tubaab nga bëgg a def sa bopp quoi tu vois esprit <laughs> esprit boobu noonu quoi donc est ce que tubaab yi rek ñoo mérité lu set wala donc voilà quoi donc c' pour cela je me dis que ne il faut que ñu essayer dafa am lu ñuy xep ko jiko yu ndaw yu nekk si ñun il faut que mu deñ donc quand je bu ma nekkee président nag loolu laay njëkk a dindi incha allah. <laughs> moo waxati lool de dégg ngeen ko ah wax na dëgg nag jikkoy sénégalais la ñu yor xam nga ñun moom mooy loolu <laughs> mais abaa ma bëgg la laaj euh, yow est ce que boo doonee euh, kii sax nu mu tuddati président de la république yow abaa est ce que di nga ma rombati sax Eva. bon ça dépend <laughs> si. non man damay damay laajte de question laa yore man. waaw bon mën naa la romb ne la Eva que mën naa la romb ne la wesh mais bu mu ci mënti doon rek. bon ça dépend parce que xamuñu nu muy demee suba quoi xam nga mais est-ce que tamit peut-être du nekk yitte yéele ëpp doole ba nga war ko mën a def noonu mais en tout cas lu ci mënti xew rek bu booba bu ñëwee comprendre rek. yow naroo kii de candidat eh, candidat de. non en fait candidat yi moom bu ñu ñëwee bu ñu ñëwul baax na en tout cas man pare leen pour voter moom ma jël. xam nga moo tax ma ne na naroo bëri candidat. Ah yow doone sax su ma doonee président de la république waaw awa dama yow dinaa la jox lii lii defal lii sama koñ dinaa fa def lee bu ndaw quoi. damay campagne quoi pour yéen ñi nga xam ne yéen may déglu bu ma nekkee président de la république dama leen defal ay promesses. studio yi dama koy yaatal. non si non parce que. pour que non en fait que waa is yooyu dañ koy yaatal quoi tu vois parce que war nañu soxla ñoo xam ne ñu mel ni ñun ñoo xam ne askan bee leen ñor. bon soit nañu wax rek quoi fii ñun ñu ngi am xelu taxaw di rayante pour askan bi donc à chaque fois que ne Sénégal mën na jiitu quoi maanaam les affaires personnelles la ñu a jël pousse ko tuuti quoi. loolu moo ñu xaw a sonal quoi il faut que ñu dindi fi tuuti les affaires personnelles et puis ñu def affaire boo ne c'est commun quoi ñoo koy bokk tu voilà ma nekk président daal def ministre. <laughs> dégg nga may sànni ci xeer di may jéem a dóor ay marta man garaawal comprendre naa ma xam naa ne boo doonee président moom nii laa lay doon naa la nga ne moom pousse leen sama garde corps pousse leen kii waay mais garaawul dinaa ko gérer garaawul man dinaa ko gérer abaa lay tàggatoo. waaw. di siyaar samay fans yi bon ah, di len wax ne peut-être Aba xaw na tëju benn instant boo xam ne ci seeni mais juste que dañu nekk di préparer ay projet yo xam bagage yu mag quoi du lourd se prépare quoi tu vois et puis di len xamal ne bon Kang Feury bi comme comme toujours quoi ñu ngi ñew buuru ënd bi mu ngi yegg si tu vois et puis di siyaar sama ménagère David Mendy Zibria ak sama staff yépp quoi di xamal gars yi ne leen vraiment aussi tamit namm nañ leen mais li ñu laaxatu di liggéey moom bu ñu ñëwee incha allah di ngeen satisfaire bu baax quoi di gërëm waa El Vision Média yëpp surtout sama sister waa Eva Chiw ak suñu master wesh ak waa kër ga yëpp maximum de respect quoi. nga ne maal daa xarab. <laughs> da laaj. <laughs> kon la sama lakkal la de li ma ko bett tey moo tax muy kii noonu di jaay sérieux mais garaawul quoi euh, ñu daal di tàggatoo ak sama. mbokk yi ñuy def ba beneen yoon ci yeneen euh, koñ daal di dugg génn sama gaay laaj la leen bëgg a doon allez ciao bisous bye bye